nee ñu ëllëg doom dina layoog bàyyam ci turuum ko tudde kon rawatina jikko ak aada jum seetaan buñ fëkk ko kon waajur yi ñoo ngi leen di dénk ngeen bàyyi xel njaboot gi sàmmonteeg àq ji dox seen diggante ak ñoom mu yar leen ci sunna ak ak ak bi saytu leen ci yàquteeg jamono ji te def seen yitte ci ñoom bu baax a baax te bañ a yokkat ndax yàqkat yi bari nañ te seeni jumtukaay takku na te am doole kon bu ngeen sàgganee tuuti rek du ngeen am la leen gënal ci ñom ta kon di ngeen ko layoog ñom ëlëk ta dañu leen yey ta ñi ci nekk ci luddul nona na ngeen leen ci jema gënne lu ngeen man ta bañ leen di mere ak a xatal ndax ki nekk ci sofan mi ngi ab malat, ta malat bi bu ko docteur bi deful ndank deful ko dalal xelam xana di ko forcer ak fasal kanam day yok tawatam rek yeen ndaw ñi li nu leen di ñëk moy ngeen top ndigal seen wajur tawik len ta xamne seen jammi tay ak ëllëg rek lañ leen bëggal ngeen xamne kenn du jur di bañ seen wajur yi buñ sañun yene fi gën yene fi raw kon luñ leen wax seen njariñal bop rek la yeen njabot gi ta buñ leen gërëmut yalla du leen gërëm wal a'yadu billah no ngi leen di denk ngeen xamne ludul yalla amut solo ngeen xamne ludul lu dul jaamu amut solo ngeen xamne ludul talibé amut solo te lu dut yi jër roye nit kon xam leen ne yii xew ci ndaw yi léegi ñu di ko roy da leen di tarleel rek te bàkkaar yi neen la muy colin yi doxin wi jëfin wi te ñi ngeen koy roye yéen leen gën fopp muy nasaraan bi ndax ay doomi jullit ngeen te ñoom nasaraan yi seen bopp ñàkk xam li ngeen nekk moo tee ñëw di leen roy yéen ndax li ngeen doon ak li ngeen nekk moo gën fopp kon bu leen ñàkk fulla ak fayda bay roy lu leen amalul njariñ xanaa xamu leen ne am nasaraan ci boppam bu ñuy wax Molière moo wax ne quand quelque quelqu'un on prétend se régler c'est dans le bon sens qu'il lui mu ne bu fekkee da ngay roy nit ki da nga koo war a roy ca la la amal njariñ waaye du ceegee ni da nga koy roy bay roy ay sikkam am nasaraan dee wax loolu bu ngeen defut kon lii nasaraan bi wax waru leen a def lu ko yées te ngeen moytu lépp lu leen amalul njariñ muy rawati na yàmba ak sanger sàngara ak jëf yépp yi nga xam ne yellut ci dëkk bi te yàlla gërëmu ko te borom dëkk bi du ci te ngeen di xalaat ci seen ëllëg muy seen avenir te di ci bàyyi xel bu baax ngeen xalaat ne yéen yéenay ëllëgi dëkk bi yéenay yaakaari mag ñi ëllëg kon noo ngi leen di dénk ngeen waajal seen bopp ci xam-xam ak ci yar te xam-xam dara gënu ci xam-xamu diine ngeen jiital ko ci seen lépp bu ngeen ko defee dëkk bi dina doon royukaay ëllëg da ngeen noppal seen bopp noppal waajur sagal cheikh Mouhamadul mustafa sagal Serigne Cheikh sagal cheikh Mouhamad Mbacke da ngeen sagal tamit sunu kilifa yii sunu borom teg sunu kanam muy Serigne Abdul Fatah ak Serigne Moustapha Mouhamed ndax ku ci sañoon ci ñoom du gis mukk baa muy dégg ak njabootam ci lu noona ni ngeen di sago seenub sëriñ noo nii la sëriñ bi di leen sagoo ci buñ leen di seen ak dégg ci la neex yàlla bokku yu jigen yi no ngi len di denk ngeen ndigal yi sun borom yi ak xormay dekk bi ci seenu cholin ak seenu doxalin di sol luy mur seen awra yep ta du mandargal seen ben cër tay moytu jaxaso bi ak góor yi len aram yi len aramut ndax shaytané dafa bari doole lool te wu dara ta du yokkat te ngeen xam ne bànneexu na lol te mbugal ma ca sun borom di tege metti na ta yag di len denk tamit ngeen wàññi pom yi caaxaan yi yàq gi ak puukaréew yi ci xew yi bokki dëkkandoo yi sunu dëkk bi nu amul lu dul moom bu yàqoo nun la yàqul te loolooy sunu gàcca bu jagee nun la jagal te loolooy sunub sag kon nanu maase raxas xol yi ba mu set kenn ku ne tàbbal moroomam cib xolam te def ko ne boppam di laa biirante di wonantew yoon kenn ku ne la mu tanee moroomam mu jàppale ko ca xale yi weg mag ñi te topp ci seen gannaaw mag ñi yërëm ndaw ñi te doon ay royukaay bu ñu leen gis mukk baa ñu leen dégg ci li neexul yàlla kenn ku ne jiital intérêt mbooloo mi ci intérêt boppam te bàyyi xiiro bi ak ŋaayoo bi ak yàqantey der te xam ne ay bokk lañ yu bokk loo xam ne duñ ko seddoo mukk kon li nu war mooy bennale suñu bopp te yeneen yéenante jàmm ñi yàlla def ñu jiita ñu tamit ci wàllu aada ci dëkk bi nu weg leen te wormaal leen bañ leen a fakkastal ñoom ñu xam ne gënuñu ñu jiite gënuñu leen a sañ tamit ci liñ leen jiite muy dëkk bi kon na leen soxla nit ñi rekk ñor nañuy nangoo xiif ngir nit ñi di lekk nañuy nangoo mar ngir nit ñi di naan nañuy nangoo rafle ngir nit ñi di wodd lii mooy jikkoy njiit bokki julli di bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi adduna tàggoon a war nu gannaaw di dem te mënunoo daw ba dab ko kon buñ ci waru alaxira danga mën nanu te nun mën a def mu agsi kon nanu ko waajal nanu doon ay jullit yu wér te sax ci jaamu yàlla doon ay taalibe yu dëggal te sax ci ndigal sëriñ Touba di moytu ay terem fonk suñuy kilifa yi suñ borom bolel muy sëriñ Abdul Fattah ak sëriñ Moustapha Mohamed te topp ci seen gannaaw te bañ leen a yamaleeg dara sagal Cheikh Mouhamadou Moustapha ci dëkkam bi te sagal suñuy waajur ci suñu nekkin fii ci àdduna wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh